alxames ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre ci atum 2021 maire Abdou Lahad Ka daje ak mboolem conseil yi ngir waajal liggéey bi ci kanam liggéey boobu nag bokk na ci ren loo xamante ne war na jóge ci askan wi dugg ci mairie bi ngir ñu mën koo liggéey budget lu ñuy xayma la kenn ku nekk nag war cee dugal sa loxo loolu nag maire Ndiamé Ndiaye dikk na ci ay leeral kenn ku ci nekk ca fa nga nekk li nga xamante moom la ñu sàkku ci yow ngir nga dóor ko ci maire bi ngir ñu mën a liggéey dëkk bu sell bi dëkk bu Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu teewluñ meer Ndiamé Ndiaye. waaye tënk nañ ko ci benn synthèse boo xam ne bi tey jii budget bi ñuy def budget bi dañ ko war a tëgg ci ay investissement tëgg ko ci fonctionnement muy fonctionnement bi muy investissement bi benn bu ci nekk. danoo war a waajal li nga xam ne bu dee fonctionnement bi li ñu war a xayma ci xaalis ne moom lañu war a mën a am déwén incha allah ñu tënk ko suñ demee nag ba ca euh, dépense ya xaalis boobee nga xam ne ni moom la ñuy dépensé day tollook li nga xam ne nii moom lañ nottoon ne jàpp nañ ko dinañ ko mën a am loolu nag dafa doon loo xam ne nii euh, dañ ñu ko dañ dañ maanaam waajib la ci liggéey bi ñuy def bu dee investissement bi tamit. la nga xamné ne mom nga japp ne mom nga am ci xaliss boy boy boy dépenser loola tamit lu toll non ngay dépenser wat fonctionnement bi nak mën nañ né deux milliards neuf cent quatre-vingt-dix millions cinq cent cinquante-huit mille trois cent cinquante-neuf francs ci lañ ko teunk non la xaliss ab fonctionnement bi wara toll kon loolu moy montant bi nga xamné ne commune bi warna gorgol ak fu mu ko mën a faire ça, c'est ce qu'il faut. Si on dépense, ce qu'on parle dans le budget, c'est ce qu'on dépense. C'est 2 milliards 992 millions 551 359 francs. Maintenant, si on tient l'investissement, c'est ce qu'on a fait 1 milliard 172 millions 941 641 francs. L'investissement, c'est moom tamit ni mu la waree maanaam xaalis bi ni mu toll ni mu duggee noonu tamit nga koy dugalee ci biir euh, projet yi investissement yi mu yem ci kepp donc loolu la ñuy wax équilibre budgétaire bu ñu boolee loolu nag dafa am loo xam ne dañ koy waajal muy budget daaw ba am loo xam ne ni dafa desoon loolu mi ngi war a toll ci huit cent trente deux millions loolu nag buñ ko jëlee dañ koy indi ndax fonctionnement la nekkoon waaye dañ koy yóbbu léegi mu nekk investissement ñu dolli ko ci li nga xam le lii moom la fi fekk bu ñu fonctionnement bi jël investissement bi dolli ci dël ci excédent fonctionnement bi nga muy 832 millions ñu dolli ko ci moo budget suñu commune ren mi ngi doon 4 milliards 995 millions 500 mille loolu mooy moy recettes yi dépenses dépense bet rek la démé dañuy fonctionnement 2 milliards 151 158 millions 558 359 francs oui li nga xamné li moy dépense effective de fonctionnement li nga xam ko dépenser pour fonctionnement bi prélèvement pour dépenses investissement 832 millions yama dox ne mo déssone mom tamit ñu indi ko dépense d'investissement bu pakasen bi momi mu nek 1 milliard 172 millions 941 641 dépense d'investissement sur fonds propres bi ñu indi wat 832 millions yi total dépense buñ ko bolé dé ci soir rek nekkat 4 milliards 995 millions 500 500 000 francs kon loolu mooy wane rek dépense euh, budget bi bi ñu ko tëggee tëgg nañ ko tëggin bu nga xam ne ni mooy liñ li fi fi ñu ko yoon teg nga xam ne ni dépense yi ci fonctionnement ak ci euh, recette ci fonctionnement day tolloo dépense ci investissement ak dépense ci ak recette ci investissement dafay tolloo loolu mooy budget bi am na nag loo xam ne ni tamit euh, bokk na si muy taxes xamna dafa xaw guddou dafa xaw guddou waye amna ay sopp ko yuñ ci def bu extrait de naissance ñi ngi daan ñi 300 changé wul bulletin de naissance légui 300 copie littérale ñi 300 extrait de mariage 500 copie littérale de mariage 500 extrait de décès 300 copie littérale de décès 300 certificat de résidence 300 loolu lépp ci état civil la ay kay yoo ce état civil ñoo jox di certificat de vie collectif 500 certificat de vie individuel, 300 certificat de non inscription 300 certificat de non divorce non séparation et de non remariage 500 certificat de célibat 500 certificat de divorce 500 légalisation 300 Yi nak daf ci amoon yo xam ni, ci état civil bi dañ ko daan def diko ko di ce maye kenn daaw ko fayee ko gis na ay si tamit dafa dañoo pour am xaalis moo taxe publicité bi panneau 25 000 francs par mètre carré la ak par enseigne simple 15 000 francs par ben pour Benat. enseigne lumineuse 30 000 francs par unité et par an par ben pour Benat banderoles, oriflamme et autres supports assimilés, 500 francs par unité et par jour. Tente à publicitaires, publicitaires, 25 000 par unité par jour et par endroit. Totem, 100 000 francs, unité et par an. Autorisation de pose de supports publicitaires, 4 mètres carrés, 25 000 francs nga fay 4 4 mètres carrés nga fay 50 000 francs 4 véhicule peint ou non sans sonorisation C'est ce nga avons fait francs par unité par jour véhicule peint ou non avec sonorisation 6 000 francs véhicule résident C'est ce nga xam fait 150 000 francs l'année podium et manifestation avec sono Nous ñi nga xam euh, manifestations par jour. Nous avons le droit d'occupation du domaine public. Dépôt de charbon, moins de 20 mètres carrés, 1000 francs par mois. Plus de 20 mètres carrés, 1500 francs. Bois mort, donc, je suis bois mort, c'est 20 mètres carrés jusqu'à 20 mètres carrés, c'est 5 000. Plus de 20 mètres carrés, c'est 7 500 francs par mois. dépôt de bois de menuiserie nous euh, avons nga xam ne dañoo ree kii machine ci ci machine yi machiniste voilà bu vous faites 20 20 mètres carrés c'est 10 000, ce qu'on ëppee 15 000 francs par mois dépôt de bois industriel Moi, ñu machine machines donc, vous faites qu'un tenez, le sous 20 mètres carrés, 15 000, sous 20 mètres carrés, 22 500. Dépôt de béton, moins de 20 mètres carrés, c'est 15 000, plus de 20 mètres carrés, 22 500. Dépôt de fer, moins de 20 mètres carrés, c'est 10 000, plus de 20 mètres carrés, 15 000. Dépôt de ciment, 20 mètres carrés, jusqu'à 20 mètres carrés, 5 000, plus de 20 mètres carrés, 7 500. Parking automobile, donc, parc automobile, 25 000 francs par mois. Lavage hors station. Nous avons fait une station. Moins de 20 mètres carrés, 15 000 par mois. Et plus de 20 mètres carrés, 22 500 francs par mois. Dibiterie. Moins de 20 mètres carrés, 10 000. Plus de 20 mètres carrés, 15 000. Conteneur, conteneur, 20 pieds. 10 000 francs par mois conteneur de 40 pieds, 15 000 francs par mois. Dépôt de foin. Dépôt de foin, moins de 20 mètres carrés, 3 000, plus de 20 mètres carrés, 4 500. Maintenant, dépôt de fruits, légumes et céréales. moins Dépôt de fruits, légumes et céréales. Nous avons des mango, du gobier le li lu euh, céréales dal arachide mangue pastèque xaalis sax bok orange donc moins de 20 mètres carrés c'est 5000 francs le mois plus de 20 mètres carrés 7500 dépôt brique colistra moins de 20 mètres carrés 5000 plus de 20 mètres carrés 7500 dépôt de ferraille moins de 20 mètres carrés c'est 5000 plus de 20 mètres carrés 7500 atelier menuiserie bois et métallique manam kon ñi nga xamni ñoo yoré euh, métallique avec bois moins de 20 mètres carrés c'est 2500 francs par mois mais plus de 20 mètres carrés c'est 5000 atelier menuiserie aluminium moins de 20 mètres carrés c'est 5000 francs plus de 20 mètres carrés 7500 atelier mécanique et électricité moins de 20 mètres carrés 5000 plus de 20 mètres carrés 7500 atelier tollerie et peinture moins de 20 mètres carrés 2500 et plus de 20 mètres carrés 5000 vulcanisateur moins de 20 mètres carrés 2500 plus de 20 mètres carrés 5000 huilerie simple Moi, qui est de yi c'est 25 000 francs par mois huilerie semi industrielle Moi, vous savez xam ay c'est 50 000 francs par mois moulin à moudre Monsieur Nouali, 5 000 francs par mois. Fabrique de glace, 10 000 francs. Production d'eau en sachet. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons 10 000 francs par mois. Moi, je produit. Production d'eau en bouteille. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons 5 000 francs, 10 000 francs par mois. Fonderie artisanale. Moi, je suis dit que nous avons dit 3 000 francs par mois 3 xelli en euh, francs par mois décortiqueuse 10 000 francs par mois pont bascule fi 50 000 francs par mois boulangerie 10 000 francs par mois autorisation d'implantation de centre de décortiquage d'arachide moins li 50 000 francs droit d'occupation de la voie publique ñi nga xam nak dañu nek ci mi pas de porte marché et alentour immédiat 5 000 francs par mètre carré donc si vous ki ci mbedd mi cinq mètre carré bu nek cinq par an pas de porte hors marché su qui dafa qu'il marché bi nga xam du ci marché bi 000 francs par mètre carré et par an emplacement fermé toute nature sur la voie publique à titre pré non emplacement fermé

de 10 mètres carrés à 20 mètres carrés maximum 7500 étalage friperie 4500 francs par mois table et étal 3000 francs par mois Les gens qui ont yu stations, ni euh, station yi gasoil 30 000 francs par pompe pompe bu 30 000 pompe nak lañ wax donc bu fekkente ne ci station bi dafa am ñetti pompe nga ñetti autorisation de traverser la chaussée manam ñi ngi bëgg puis perdu station d'essence 30 000. redevance ODP occupation de la voie publique due par la CBAO marché Ocas, 500 000 francs par mois produit de stationnement stationnement des véhicules de transport. bus, c'est 1500 francs jour. Car de 25 places à 35 places, c'est 500 francs par jour. Mini-car de moins de 25 places, 500 francs par jour. Mbaketouba, on 500 francs par jour. Véhicule 7 places, 500 francs par jour. Taxi interurbain, 500 francs par jour. Redevance de taxi urbain, 3500 francs mois taxi urbain nous avons 3500 francs par mois camion 20 tonnes 1500 francs par jour camion 30 tonnes 3000 francs par par jour camion citerne carburant 3000 francs par jour camion citerne eau pardon eau 15000 francs dafa vous avez Vous avez un Camion citerne eau, camion frigo. 15 000 francs par mois. Ah ouais, 15 francs par mois, c'est bon. Ah, c'est vrai. il est, par jour, il est par mois. Camion frigo, 25 000 francs par mois. Pardon Camion Camion frigo, 2 000 francs jour camion Ben Sable. Ben Sable. Autosoufi, 30 000 francs par mois. Camion Ben Sable, 25 000 francs par mois. chargeur, 30 000 francs par mois. Camion béton, 1 500 francs par jour. Camion de vidange privé, 25 000 francs par mois. Prestation de vidange faite par la commune Autière, commune autocommune Boulay Videl, 15 000 francs par mois par voyage par voyage par non non non par vidange prestation de vidange faite par la commune 15 000 francs par vidange. par vidange par vidange merci. minibus Tataï, 6 000 francs par mois. camion 508 légumes et similaires 500 francs par jour. tricycle 2500 francs par mois ah taxe applicable durant les campagnes arachidières euh, camion 30 tonnes d'arachide 1500 francs à chaque chargement chargement 1500 et à chaque débarquement camion comme camion 7 tonnes d'arachide 2500 francs à chaque chargement et à chaque débarquement. Camion 10 tonnes, arachide, 5000 francs à chaque chargement et à chaque déchargement. Camion 30 tonnes d'arachide, 10 000 francs à chaque chargement et à chaque débarquement. Conteneur 20 pieds d'arachide, 5000 francs à chaque chargement et à chaque déchargement. comme euh, période campagne arachidière bi chargement et débarquement xam nga minute que décharger stationnement véhicule hippomobile Attraction cheval charrette 1500 francs par mois euh, Attraction arme. âne bu francs par mois équipement marchand marché casse, table et étal 000 francs par mois souk marché 4 000 francs par mois cantine et magasin 5 000 francs par mois dépôt toujours marché occas 15 000 francs par mois autre marché et forêt. Vous avez un marché souk 2000 francs par mois cantine 3 000 francs par mois magasin 5000 francs par mois dépôt 15000 francs par mois table et étal 3000 francs par unité et par mois hmm? taxe d'abattage perçue aux abattoirs ovins et caprins 100 francs par tête bovins 200 francs par tête camélidés 500 francs par tête Produits, vente de bétail dans les forêts et autres lieux dédiés. Ânes et chevaux, 200 francs par tête et par débarquement. Moutons et chèvres, 100 francs par tête et par débarquement. Bœufs, 200 francs par tête et par débarquement. Ah, ah, ah d'accord. D'accord. Par contre, voilà. waaye ñi nga xam ne dañuy dañoo dañoo wàccee jur bu fekkee bu nekkente ne mbaam la wala fas Euh, dana fay ci euh, jur gu nekk ñeent fukki dërëm bu koy wàcc bu ñuy koy wàcc bu dee bëy xar ñaar fukki dërëm lay fay euh, ci bopp bu nekk bu dee ay nag ñeent fukki dërëm lay fay saa yu wàccale benn bu nekk bu dee giléem moom téeméer lay doon saa yu accès aire de parcage amna nak bara bo xane bi dañ fay dañ fay dañ fay dañ fay denc te yi lolou 20000 vingt mille francs lañ ci fay mo fee sa sa lu melni sa ben làkk espace réserve 3000 francs par mois autorisation de construire de lotir et de démolir loolu ci walu tabakh mi la autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation bu fekkente ne da ngay tabakh lo xam li du étage kër souf rek la dossier bi 40 000 francs que tu fay budé étage nga fay 20 000 francs par étage nak budé un étage nga fay 20 000 autorisation de construire un immeuble à usage commercial bu féké nak yow immeuble bi ngay tabax dang cey djublu eh, def ko mm, ki commercial rez-de-chaussée est fekk ne étage 100 000 francs ngay fay ci dossier bi étage nga 50 000 francs par étage étage bu ne 50 000 frais de bornage, lotissement de 1 à 100 parcelles. Vous faites vous avez ces parcelles, vous avez 20 000 francs par parcelle. Frais de bornage, lotissement de plus de 100 parcelles. Vous faites que vous avez 100 parcelles, 15 000 francs par parcelle. Procès verbal de réception. Vous avez dit, donc il sort là, 15 000 francs. Certificat de conformité. Pour vous, vous avez dit, ce yef 15 000 francs nga ci certificat d'urbanisme 15 000 francs nga ci certificat de démolir même si vous da un certificat de démolir lol tamit 15 000 francs droit et taxes perçus pendant la période du grand magal de touba magal gi taxe sur la publicité véhicule banalisé 40 000 francs par ben.

pendant la période du grand magal li ñu wax ci magal gi rek le concernant. veille tricycle abi publicitaire moy ñu Je ki ñetti tanki Je ne sais pas nga dafa bok légui ci commerce bi 20 000 francs lay fay mom tamit ci magal gi tante a pu bi publicitaire bu fekkee da nga tante fait jublu ci am jaay ak publicité foofu tamit tante bi da nga ci 50 000 francs Mais tente bu ne oriflamme y yi ñuy defar pour toujours publicité 15 000 francs nga ciy fay moom tamit panneau et banderole les panneaux, panneau wala nga def banderole yooyu jëm ci publicité bi ci m'a gi da nga war a fay vingt 25 000 francs par mètre carré bi nga tu utiliser euh, prospectus et autres autocollants amna lo loo li da nga ko bëgg def publicité way day mel ci genre kayit bu yam nga koy def ni rek mu rafet nga mën ko jox nit muy prospectus ak leneen loo xam ne lii xëy na léegi lu ñu defar di ko coller ci mur yi toujours jublu ci publicité loolu tamit benn bu nekk da nga ci fay 1000 francs podium boo organiser podium nag moom 300000 francs ngay fay ñu dem nag ci droit de stationnement des véhicules de transport bu dee camion frigo yi 40000 francs la ñuy fay bu ñu stationné véhicule hydrocarbure mooy ñi auto yi guddi yi jël gasoil bi 50 000 francs l'année fait. Camion vidange, 30 000 l'année par ben. Camion matelas remorqué, magal camion benen, y a aussi qui naom, 75 000 francs par unité. Camion matelas simple, parce que camion matelas, le camion bi, quel remorqué 50 000 francs l'année fait. Conteneur 20 pieds, 20 000 francs l'année fait. Conteneur 40 pieds, 40 000 véhicule de marchandises boo ngay xam day un bagage indi mu ñuy jaay moom tamit dix mille droit d'occupation de la voie publique léegi ci voie publique bi boo si dañ euh, voie publique ak est euh, euh, ak ki qui bi ak domaine public xawna am touti woro mais si, droit d'occupation de la voie publique la wax voie publique nag bu ko waxe mom moy li ñepp bok nga xam mom moy yoon bi euh, étalage boo ci defee étalage francs table ak euh, jël sa wala nga parasol mu doon sa place loolu tamit da ngay euh, par non période la li may wax may wax concerné bu màggal gi weesoo jeex na gi tamit am temps. am donc day

pénalité de retard. pour les ne droits. Pour les droits et taxes mensuelles, il sera appliqué une pénalité de retard de 25% sur le principal à partir du 10 du mois. Qu'est-ce que vous savez que vous avez fait, nous sommes tous les 10 qui sont venus. C'est fait. Si nous avons fait une pénalité, pénalité est de 25% les dons su kon ñaar la fay daf aw kon moytu la pour les droits et taxes annuelles il sera appliqué une pénalité de 15 sur les sommes dues et une majoration de 10 à partir du 1er avril de l'année sur le principal pour les droits et taxes annuelles il sera appliqué une pénalité de 15 pour qu'il bu fekkente une taxe bi nag ci at la jëm par ñom dañ leen di appliquer 15% ce li nga xamné li mom moy li ñu wara fay hmm. et une majoration de 10% ñu yokkat ci yenen 10% à partir du 1er avril vous né ba le 1er avril dañ ci yokkat 10% xamna lolu dañu bëgg rek kenn ku nekk li nga wara def rek def ko ci ko def ba hmm. sur le principal de chaque mois de retard donc la nga warna fay ci wér wi lolu tout mois entamé reste entièrement dû weer it xasse ba tambali man daa dee ñaari fan nga ci def kon day melni wéru yépp légui mom da nga fay disposition finale la présente délibération abroge et remplace toutes les délibérations antérieures portant sur la matière ci-dessous citée kon nak délibération bi nga xamné ne tey mom lañ def ci jàngal leen ko day def né kon suñ ko woté ñun tey bépp délibération bo xamné bi jiitu woon na fi boobu mom bokatul légui bi moy bi nga xamné ne sax voilà. jërëjëf El Hadj Ndiame kàddu yi macha allah rafet na lool mu doon nag wata bilsi bi nga xamante ne mair bi Touba doon ko amal tey jii ci teewaayu mair ab Lahad fegoo ak Serigne Sidi mu Serigne Abdou Aziz Baara mu Serigne Baara mu Serigne Touba Xaadimu ak kilifa yu takk lool at suñu préfet teewoon jotaay bi waa trésor ñoom ñëpp kenn ku nekk ñëw nga teew li ñu wax nag ñoo ko déggandoo kenn ku nekk nag xool bu baax lan moo la ci war dëkk bi ngir mu jàkk ñoo ko mën a jagal kenn ku nekk bu toogee laaj lu ñu war a def te defoo dara kenn du ma def dara defal li la war doog a sàkku li la warlu te xam ne la serigne Sall waxoon ku bañ a fay fii sóogee di nga ko fay feneen rikkuwaay kenn ku nekk defal ngir serigne Touba serigne bi nag moo doyloo serigne Sidi jël dëkk bi teg ko ci loxoom serigne Sidi doyloo kii di meer Abdou Lahad Ka jëlaat dëkk bi tegaat ko ci loxoom ànd koog moom muy guddi muy bëccëg ñu fas yéene ànd jàppale ko ngir serigne Muntaxa mi nga xamante ne moo borom dëkk bi suñu borom may ko ci ndam ci barke ba ma xaam Rasuul jërë ngeen jëf mbokk yi seen mbokk mbokk mbokk yi Mor Fama Mbaye ànd na ci ak yéen.